mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi tey ñu ngi fii ci Touba Touba Almaxroosa di leen bëgg xabaar loo xamante ni dangeen ci bég ndax yàlla da cee bég yonante bi bég ci Serigne Touba bég ci sëriñ Serigne Mountakha bég ci Serigne Cheikh Mbacke Madina bég ci sëriñ maxtaar Mbuub ak waa kër Alhaji Baara Mbuub ñoom ñëpp ñu bég ci muy daaray alxuraan joo xamante ni mi ngi fii boo jógee Touba. ci élip ci ci jànnatul maxwaa boo dikkee ba ci rond bi boo doxee tuuti sa loxo ndijoor première loo deuxième loo troisième loo foofu lañ leen defal daara alxuraan joo xamante ni daara ju mag la defal leen fay tamit li nga xam ne moo di jumaa waaye bu fekkee da ngaa jóge dakaar boo wàccee li nga xam ne moo di Ila Touba bi boo dikkee mi ngi lay féete sa loxo càmmañ foofu la daara ji nekk daara joo xamante ni dañ koo tabax tabax bu mucc ayib tabax fa jumaa ju mucc ayib nga xam ne ñaan gi sëñ tubaa doon ñaan ci dëkkam bi ñaan googu nangu na mbokk yi na ngeen ma déglu seetaan ma ma wan leen daara ju mucc ayib la ca gën a yéeme nag li ma leen di bëgg a wax mooy xabaar bi ci gën a neex mooy daara la joo xamante ni wax fu la waa kër Alhaji Baara Mbuub ñoo ko defar tudde ko ki nga xam ne nag mooy seen maam ji nga xam ne jàng ak jàngale ci la nekkoon muy sëriñ maxtaar Mbuub moom lan duppee daara ji muy waajuru Alhaji Baara daara jooju nag boo gisee joxoñ bu xonq bii ngay seen ci tabla bi moo lay won ne daara ji soriwul daara jooju dinañ jàngal góor dinañ jàngal jigéen ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne almadaarisu xabla al masajid am na ñu wax ràggal addis bi waaye na ngeen tabax daara yi ba noppi soog a tabax jàkka yi waaye boo duggee ci biir di nga xam ne tabax nan daara ju mucc ayib waaye di nga gis ne tabax nan jàkka ju mucc ayib jàkka jooju tamit sëñ Tuubaa moo ñaanoon fii ci dëkkam bi wal tusbitan fii jamaatan tuxiimu asalawaatil xamsa daxban yaa akim kon mbokk yi topp leen moo leen daara ji tey di ngeen bég mbég mu jégg dayoo وسقت مع المختار بملة bi qad moo

ba خديمه محبا لكم في الله والله mbokk yi jërë ngeen jëf yaakaar naa ne fi ma leen waxoon ne leen topp leen ma ma wan leen daara ji nekk fii ak jumaa ji nga xam ne moo nekk ci daara ji ci biir daara ji fi la jumaa ji nekk nga xam ne xale bi dañ koy jàngal yar ko mu doon xale bu góor ak xale bu jigéen ñoom ñëpp jël na leen defar ko ay appartement yoo xamante ni appartement yi dañ koo xaaj ci digg bi côté bii góor ñi ñoo fii féete côté bii jigéen ñi ñoo fii féete def fi ay lal yu mucc ayib waaye def ko liggéey bu mucc ayib boo xamante ni lépp lu liggéey bi laaj ci dëkkuwaay ci nekkuwaay lépp def nañ ko gis ngeen ni mu ko tee saal yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf foofu la ci côté càmmoñ bi fi la jigéen ñi di jànge côté ndijoor bi fi la góor ñi di jànge boo demaatee ci kaw fi nga xam ne fi la ñuy tëdd foofu tamit ñoo ko yemle juróom benn néeg moo nekk foofa fii góor ñi ñoo fi nekk fii jigéen ñi ñoo fi nekk bu ko defee jàngalekat yi am seen appartement yoo xamante nii ñoom tamit fi la ñuy noppaloo seen i yi nga xam ne am nañ fa néeg ak salle ak salle de ak beneen fu ñuy recevoir ay gan yoo xamante nii ñoom seen i kii la ak imaam ji nga xam ne mooy jiite ci jàkk ji tamit wutal nañ ko foo xamante nii dëkkuwaayam la ak nekkuwaayam wutaat na ni tamit benn espace boo xamante nii xale yi xam ngeen ne laaj na ñuy defar seen yaram ak événement yi nga xam ne mooy am ci daara ji ñu mën ko di ko organiser foofu boo duggee ci biir jàkk ji tamit da ngay gis ne jullikaay bi nga xam ne def nañ ko fi muy jumaa ji muy jàkka ji foofu nga xam ne euh, defar nañ jigéen ñi nga xam ne tamit bàyyi na leen xel nga xam ne jigéen ñi fa la ñuy jullee bu heure julli jotee ñu jëm julli bu jàpp jotee ñu dem jàpp bu tëdd noppal jotee ñu dem tëdd fi nga xam ne tamit fi la nuy xéwloo ci kaw foofu tamit defar nañ ko nga xam ne bàyyal bu yaatu la boo xamante nii dañ faa def sax benn écran boo xamante nii xale yi bu nuy dikk di anc wala ñuy reer wala ndékki dañ leen fay tegaale al alxuraan ñuy dégluwaale jàngkat yi nga xam ne dañuy tajwid ak di nga xam ne ay façon jàngkat yu bari la ñoom ñëpp ñu leen koy tegal ngir ñu mën cee gën a mën a defar seenam njàng ñooñu tamit xam nga ne foofu tamit xale yi ci wàllu kiisin bu dee wanag yi tamit am na wanag yu rafet yoo xamante ni dañ koo def muy yoo xamante ni lu mat juróom benn toilette yoo xamante ni juróomi yoo xamante ni foofa sanguwaay dong la doon foofa jigéen ñi ñoo fay sangoo am nañ seen wanag yi tamit ñoom jigéen ñi yoo xamante ni seen i cabinet la am nañ foo xamante ni tamit wanag yu ñuy sangoo la neen ko amee rek ni la ko góor ñi amee lu jigéen ñi am rek góor ñi dañ koo am li ñuy wax démocratie lislaam moo ko def lu nu defal góor ñi rek dañ koy defal jigéen sëñ tubaa am na ko mas a dikk ci moom ne ko euh, sëñ tubaa ne ko ana sa doom joojee ma fi joxe woon tur mu ne ko bu doon jigéen bu doon góor mat naa dal mu ne ko ba muy góor nag mu ne ko ba muy jigéen nag loolu li ci sëñ bi jublu mooy jigéen daa war a jàng góor daa war a jàng yonente bi salaa salaam nee na jàng faratale ci jullit bu góor bi ak bu jigéen bi ci jullit bi sax rek jullit bu nekk rek jàng faratale ci yow moo tax waa kër alxaaji baara mbuub def taax mu rëy mi def ko wax fu nag wax fu nag mooy lan ci lislaam te lu ama am solo saxaaba yi dañ ko daan def Seydina Omar Seydina Ousmane ñoom ñoo ñëpp dañ koo defoon ñoom saxaaba yi mooy dañ daan am seen kër gu rafet wala tii boo xam ne dañ koo tabax ne lii de duñ ko donn ëllëg yàlla tere tereti ko bu lu fi mën di génne lislaam moo ko moom jullit yi ñoo ko moom moo tax waa daara ji loolu la waa kër sëñ mbuub def fii kenn du ko donn kenn du doon jàkka ji kenn du doon kër gi yàlla na yéex waaye lépp lu fi nekk ñi fiy jàng ñoo leen di fayal ñoo leen di toppatoo waajur wi nga xam ne dafay indi doomam juróom-ñaari at mooy at yi nga xam ne mooy yi gën a yi gën a bari fukki at ak ñaar loola lu ñàkk sax lay doon loola nag ku fi nekk tamit danañ la jàngal alxuraan bi tilaawaten wa tajwiitan wa tafsir ndax di nga fi jàng ba mokkal boo mokkalee ba noppi di nga bind kaamil boo bindee kaamil di nga beqi da nga fi jàng xam-xam loolu sart la yoo xamante ni bëgg nañ waajur incha allahu rabbi day am jumaa ji tamit xam ngeen ne jumaa la joo xamante ni ju mucc ayib la ñaan gi nga xam ne suñ tubaa da koo ñaanoon ne yàlla defal ma sama dëkk bii di tuubaa bépp xam-xam boo xamante ni bu dagana jàng la ñu ko fi jàng waaye defal ma fi tamit foo xamante ni dañ fay jooxe waxtu yu juróom yi loola mooy gi defal ma sama dëkk bii tamit ñuy ñoo xamante ni ñuy moytu bi daalan waaye ñuy topp sunna la kon fii ku fi jàngee boo génnee mën ngaa doon imaam boo dee jigéen yi tamit danañ la jàngal togg danañ la jàngal la nga xam ne moo di fóot danañ la jàngal liggéeyu jigéen danañ la jàngal alxuraan jàngal la xam-xam jàngal la addis la ko woykat ba waxoon jigéen ju man cere man ceeb xam xadis man a woy man alxuraan bind kaamil kenn du waa kër Cheikh Bara kon mbokk yi ñu jox leen numéro téléphone yi nga xam ne ku bëgg a jot waa kër gi fi nga leen di jote waa daara ji 33 882 42 30 77 558 45 zéro loolu mooy numéro téléphone wax fu nag mooy nga xamante ni da nga fee def loolu ngir ëllëg boo fi jógee lépp luñ fa jaamu yàlla daf la fay fekk benn araf buñ fi jàng alxuraan juñ fi jàng addis buñ fi jàng jumaa ji luñ ci julli ndox mi nga xam ne moo am ci kii bi tiwo boobu day mel ni day sotti ko di sotti di jëm ci sa bàmmeel yal na fa fekk alaaji baara mbuub yàlla na fa fekk sëriñ maxtaar mbuub mi nga xam ne moom lañ tuddee daara ji ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ko taxawal yàlla nañ fi yàgg dund lu yàgg-yàgg kon mbokk yi daal daara ji mi ngi noonu boo jógee fi nga xam ne moo di ilaa Touba bi ci yoonu ngaabu bi jëm si Touba ci jannatu boo dikkee boo dee dikk boo jógee ndakaar sa wetu càmmoñ la féete boo jógee Touba ci sa wetu la féete ci wetu bi mbokk yi alxuraan mooy fàggu fu jullit mbokk yi addis mooy wéttuwaay gi jullit mbokk yi ak taalibe mooy jariñ nit ci bàmmeel moo tax waa kër suñ baara mbuub def nañ lépp kon mbokk yi nañ leen ñaanal te jàppale leen ci daara ji indi fi xale yi te nu yar leen yar boo xamante ni ëllëg danañ mën a sarwi ci réew mi dëkk bii nag suñ tubaa dafa waxoon ne bu fekkoon ne nekkuma ci loxoy tubaab yi wala awma benn gàllankoor bu ma yàlla teg kon li may def ci sama àdduna muy sama liggéey mooy damay toog tubaa ku ma fekk ma jàngal alxuraan yar la yarab diine